xam naa dañuy jox ak laay rek parce que ku ne dafa wutu euh, ndem si yàlla Mansour Kama ñu gisoon taxawaayam ci réew mi. Mm-hmm. dañuy wéy encore une fois ñaanal ko yàlla fa mu tëdd gënal ko fi mu jógee yàlla xaare ko aljana encore une fois muy hommage boo xamante ne kam il le mérite. président Mansour Kama mm-hmm. dialogue social. mënoo ko woon a wax ci réew mi te Mansour Kama nekk ko ci di dox loolu sax la gënoon a féetewoo que. jiite organisation patronale cest à di nekk ci institution yi instance représentative yi ci dialogue social di ko suuxat moom demoon na ba nit ñi yaakaar noo nekkul patron mais ci institution yi nga xam ne nekk na ci ak ci dialogue social bi mm. pour entreprise yu dox ak surtout parti prix bi mu am pour le privé national cër bi Mansour Camara doon wax a président ba xol bi jóg. fëgg ci taabal ji. loolu aussi je pense que c' est très bien. ndox mi par exemple gis nga et puis. c' était un acteur boo xam ne il était dans l' action. Mm-hmm. yemul woon rek ci patron non man xam nga sama maqaama laa yor toog jàpp sama jàmbur. comme syndicaliste la woon. Mm-hmm. effectivement c' un syndicat de patron moom vrai syndicaliste du patronat la woon. Mm-hmm. et xajoon na fi nag. moo tax mbas mi te xajoon ci suñu waxtaan yi. Mhm. doo tudd Mansour Kama tuddoo Ibrahima Diouf. Mhm. kii quelque du secteur privé informel. nga xam ne daf ko tabax. doo tudd Mansour Kama te tuddoo Pierre Ndiaye. grand secrétaire général du ministère. dama yem ci ñi fi nekkoon ci wàllu économie rek xel comme bâche. Mhm. ñëpp xajoon nañu fi. wax dëgg fa yàlla moo tax aussi humilité ak dem dañ doon rendre hommage rek euh, président Mansour Kama. waaw jërë jërëjëf jërëjëf euh, Abdoulaye. Euh, Mansour mënoon nañu continuer di ci wax lu bari parce que joxe nga plusieurs dimensions wu Mansour mhm. ci li mu taxawe woon ci réew mi euh, gëm ko nag euh, ba mu jural ko lu bari ci ay xat-xat yow xam nga ci dara waaye euh, foo waxee moom rek mu ne réew mi jaar na ko ñi ngi koy ñaanal yàlla ñu yërëm ko ni ñu buggee woon réew mi assise nationale yu firnde la parce que ñu ngi màggal cent ans Amadou Mahtar Mbow on a vu position bi mu amoon ak ci assise nationale xam nga boo jëlee assise nationale yi rek bi mu ciy dugg coow li bari woon nañu ndax patronat war pression bi ndax war dugg pression bi waaye dafa jël matuwaayam jël fitam jël jël jël lépp lu war ne réew mee ko ñor te dina ci taxaw dina ci wax li ci xalaat avec nag conséquences yi mu jur yu bari Eh, te loolu lor na entreprise yi lor na moom ay affaire am yor na lor na ko ci ci ci ci lu baree baree bari waaye comme ni ma ko waxee réew mi jaraloon na ko donc euh, di continuer di ko ñaanal yàlla euh, mu ni mu yéwéne woon ci ñun yàlla na yërmande boobu yàlla wàcce ko ci moom. Mm. amiin yaa rabbi est-ce ko mel noonu yomb na. mais yombul. Mm. xam nga euh, man la yàlla def. ma utu ko mhm. waaye aussi euh, Mansour dafa amoon loo xam ne yàlla koo ko jagale woon c'était un homme d'une grande stature intellectuelle mhm. dafa amoon plusieurs dimensions c'était quelqu'un qui avait un grand charisme waxee nit ñi déglu ko c'était quelqu'un qui avait un, un très grand réseau parce que yàgg na ci c'était quelqu'un qui était un panafricaniste parce que yàgg na ci euh, jamono nag ni mu doxee Euh, ci confédération bi ñu nekk euh, nit ñi dañ ci woote rupture mooy euh, bu la nit joxee bu la yàlla joxee nit ku baax mu jóge fi xaj na dinga wut nit ku baax waaye nag da ngay seet aussi ndax mënuñu seet nit ñu baax yu bari loolu lañu bëgg a wax ni que dañu bëgg rupture ci bañ di sukkandiku rek ci homme providentiel yi parce que bu ñu fi jógee rek gis nga li mu jur mooy euh, ñun ñëpp ñu amul ci yaakaar continuer continuer suñu borom xëy rek jële ko fi donc y a pas de relève véritablement préparée pour ñu jël ko dans la douceur loolu moo indi loolu na la ñu bëgg ci kattanu yàlla ñu jële ko fi donc man de bi ma jëlee ak ñi nga xam dañ ma seetsi woon pour ma jël loolu lañ bëgg a def mooy liggéey ci collégialité àdduna bi dox na dox boo xam ne kenn mënatul am capacité boobu di rayonner ci dimension yëpp parce que doxin bi dafa gaaw doxin bi dafa am importance ci réew yi rawatina nag réew yi nga xam ne ñun la donc ñun li ñuy prôné actuellement mooy dajaloo ku ci nekk jol domaine de compétence yi nga soxla loolu tax aussi bi ñu ma seetsee loolu la ma ñi argumentaire bi yëpp loolu la woon. lan moo tax kii bi yéex maanaam élection bi succession bi yéex parce bi bientôt ça va faire un an oui. Mm-hmm. yàgg na. Mm-hmm. c'est que nag xam nga euh, mbir mi dafa dafa amoon ñu bëgg ñu bari euh, euh, te lépp ñu bëgg ko dox rek ci dal parce que bi mbir Covid bi bi mu ñëwee dafa jaxase dafa lëmbe réew mi bu baax a baax a baax a baax. donc loo ciy def it il faut mu gaaw waaye il faut mu am dal parce que euh, euh, euh, bi combaaloo comme ni ñu koy wax coolof ci jamono ju mel nii hmm. daf dul yoon parce que fii ñu toll waruñu toll di wax sénégalais yi naa Abdoulaye la wala monsieur Diala walla soxna si la fi mu ne mbir mi mooy lu nuy def ba génn ci si biir réew mi ba ko ñëpp mën ci jariñoo hmm. loolu moo am solo loolu nag moo taxoon Euh, euh, euh, bi yëf yi amee ki kii di wax ñi dañu bëgg ñeneen ñi kii ñu de ñu jeg comité des sages am na ay mag yu fi nekkoon yàgg fi ba retraité ñu jël mbir mi teg ko seen loxo ne leen lijjanti leen ko ba ñëpp nekk ci jàmm loolu nag mënuma ci sori parce que bokkuma woon ci comité boobu bu fekkee ne da ngeen bëgg a xam nan lañ demee ñoom nan lañu liggéeyee lan lañ ci dox lan lañ ci wax lan lañ ci def ah am na président maanaam euh, vote bi moom consensus la wala dafa amoon ñeneen ñu sampoon seen. dënd euh, dama bëgg rek ñu rester ci principe yi. xam nga CNES ni muy doxee euh, ak ni mu mës di doxee mooy entreprise bi mën na bokk fédération bi mën na bokk groupement bi mën na bokk waaye boo bokkee doon entreprise. seul dañ lay boole ci benn groupement wala ci benn fédération et cetera wala ci benn syndicat ñooñu nag ñoo boolewu ne comme mbooloo mi bari na euh, doxalin bi ci texte yi dañuy def euh, assemblée général boo xam ne juróom benn fukk nit ñoo koy bokk euh, critères yi ñuy dégager mooy xool importance bi xool chiffre d'affaires bi xool employé yi nga am ñii ñu jox la juróomi nit ñii ñett ñi ñaar ñii benn ba mu mat soixante loolu mooy kuréelu assemblée générale assemblée général boobu bool taxaw ñu xaaj ko ci digg bi ne dañuy jëlaat trente loolu mooy conseil d'administration conseil d'administration boobu ñu jox ko aussi euh, euh, euh, ndigal ne ko ci sa biir da ngay tànn ci sa biir bureau bureau boobu mooy ñooñu ñooy ci conseil boobu ñooñu ñooy fal président bi noonu la mbir mi demee donc euh, xel nag mën na nangu ne euh, confédération boo xam ne euh, boole na industriel yu sénégalais yi ak étranger yi ci bokk médecin yi pharmacien yi boulanger yi bureau technique yi mm-hmm. notaire yi ñooñu ñëpp booloo nga ne ñooñu ñëpp ay ay ñu nasax lañu euh, amuñu xel dañ leen a manipuler ñii doon ay agrégé ñii doon ay docteur ñii doon ay lépp nga bëgg jël loolu yëpp teg ko ci poubelle bi ne ñoom ñëpp dañoo complot pour far nit. loolu maanaam syndicat bi jiite BTP bi bokk ci yéen ñooy remettre en cause la régularité du scrutin bi nga xamante ne moom moo tax ñu fal la dañ koy remettre en cause. waaw mais loolu. moo tax ñu euh, doon gaz waaw. Ah, Mhm. allez yi foofu laa bëggoon ñëw fi Chérif parce que dégg nañ quand même démb coow ñu génn ci presse bi. di mhm. contester et tout cela. bëggoon nañ ñu xam ci sa position. waa cest di dire que euh, euh, position mooy man ñoom duma leen tontu individuellement parce que dama jël benn principe ne du ma dugg mugg ci débat <coughs> débat crypto personnel. Mhm. du du du du yokk dara ci ci ci euh, réew mi. du yokk dara ci kii bi démocratie lañu nekk. Euh, ñoom ci conseil d'administration bi ñetti baat lañ ci am ci fanweer yi hmm. bi ñuy def assemblée bi ñoom bokkoon nañ ci assemblée général bi bi fal conseil d'administration bi mais ñëwuñu bi conseil d'administration bi di fal bureau bi ñoom amoon nañu candidat candidat bi bi ñu demee ne dañuy def campagne ñu def campagne bi ñu nee dañuy dem ci conseil des sage bi pour ñu concilier position yi ñoom ñu ne duñu dem loolu moo am donc euh, ñun candidats yi nga xam ne ñaari candidats yi des ñu d'accord ne ku ci euh, gagné nanga jàppale keneen ki loolu la yëf dem ñu ñëw ci fanweeri nit ñi euh, ñaar fukk ak juróom ñoo présent donc ñaar fukk yoo xam ne dañoo ñëw ak cinq yoo xam ne dañu amoon dëj ñu joxe ay procuration ñu ñëw boole muy vingt cinq donc mu manqué juróomi nit ñett yu BTP ak ñaari nit yoo xam ne benn notaire la ak benn boulanger yoo amoon teq-teq ñu ne mun mënuñu ñëw. loolu la conseil d'administration boobu moo ma fal ci vingt cinq ci juróom ñaar fukki nit yi ak juróom ñett ñi nga xam ne ñoom ñëwuñu ñoom ñooy contester au non de leur fédération. Mm-hmm. léegi ñu ne ñu nangul leen nag. ne mm-hmm. démocratie la nekk. Mm-hmm. ku ci nekk am nga droit bu ñu tegee mbir. waxtaane ko ci suñu biir ne nii lay demee ngeen ne d'accorduma ci ah loolu man du ma du ma damay damay defe ne rek président li ko war mooy sa gannaaw yaatu parce que li wax mooy dañ ne conseil d'administration bi ce n'est pas le troisième vice-président moo ko war a convoqué mais le président en exercice alors qu'il n'est pas empêché xam nga nit da ngay waxal yàlla rek moo tax ma ne bu ngeen bëggee am firnde yu wóor da ngeen dem ci comité des sages. parce que xam comité des sages yi duñ leen teg ba pare. ñoom ñuy cautionner lu dul dëgg. Euh, président bi nga xam ne moo fi nekk. Euh, oui bi nga xam ne moo fi nekk. Euh, normalement war a waroon na ko mooy assurer intérim bi. Mm-hmm. dafa bind mail yónnee ko membre yëpp ne moom du convoqué. moom du convoqué texte yi wax na ne comme ci association yëpp ci suñu bos un de membre bu ñu d'accordee mën nañu convoquer conseil d'administration ñu am plus du tiers tiers bi diis la je crois que ñi demandé ñu def ko dem mën nañu ba dix-huit ou vingt personnes ñu ne comme moom nee na du convoquer tiers bi décidé na day convoquer nañu jox deuxième vice président bi mandat mu convoqué donc loolu la moom dafa signé texte bi rek mais ñun euh, euh, membre yi conseil bi ñoo décidé en application de l' article ñu convoqué. léegi coow li coow li judd ci ci ci ci élection beeg euh, ak ni nga expliqué mm. est ce que loolu tey jii du jafeel mission bi. mission bi nga xam te ni déjà li leen di xaar bëri na bokk na ci chantier yi euh, secteur privé bi nga xam te ci jamono ji dafa dafa dafa nërmeelu ngeen war ko yëkkatiwaat euh, ci moment bi ñu toll nii ndax du indi coow euh, diisal mission bi ba noppi nga xam ñu itam chantier yi lan ak lan ngeen ci nar a hmm. yaakaar naa ne ñii yëkkati coow li ay ay kilifa lañu hmm. yaakaar naa ne bëgg nañu réew mi yaakaar naa ne xam nañu tollaayu réew man de ci sama bopp euh, euh, coow du am ci man loolu moom lu ma lu ma leer la parce que mm. du ma tontu mukk ci mbir moomu li texte yi wax rek laa leen di restituer ñu jàll ci euh, donc dinaa leen aussi tàllal loxo mm-hmm. ci bëgg a continuer liggéey nga liggéey dañu bëgg rek comme li ñu gis ci politique ak yeneen yi nit ñi dañ defe ne rek boo newul ci kaw rek <laughs> doo dara mm. te loolu en tout cas man du sama du sama principe parce que yàgg naa ci euh, confédération bi man ci commission technique laa doon liggéey euh, parce que loolu moom ma intéressé foofu ngay amee xam-xam foofu ngay amee compétence d'ailleurs loolu ñi ma xam ci loolu lañ ma xamee. Mm-hmm. parce que man dama doon dugg ci commission technique yi bokk ci jiite naa ci yu bari liggéey. donc loolu aussi boo indi nit ñi bi ñu demee ba nga xam ne jeexi jaax am na ñu ñoo ne ma wax mais yow comme xam nga am nga plusieurs fonctionnement bi fonctionnement bi ñaata at nga fa def jaa euh, mais depuis man so euh, dama bëgg a leeral ne que sama entreprise Sopasen moom mooy membre euh, CNES CNES Euh, SOPACET dafa am benn syndicat bi mu bokk muy GAIPES parce que dégg naa ay. amalgame yu bari. GAIPES bokkul CNES. na leer xam nga nit ñi aussi booy wax rek da ngay wax ak yàlla. Mm-hmm. GAIPES bokkul CNES bokkugu ci en tout cas. xaj na ñoom dinañu seet ci seen biir. su la ñu doon fi plainte ancien ministre de la pêche bu waaw mais loolu bu ñu ci bu ñu ci sori parce que du du wax ji dama leen doon leeral rek ne que GAIPES. Mhm. bokkul CNES donc li ñuy amalgame bi ñu bëgg a def. Mhm. du ma leen ci topp parce que c'est c'est de l'intox pur et mais président est-ce que lii feeñalul problème bu gën a profond ci Sénégal c'est-à-dire que. Mhm. saa bu ñu amee élection de représentativité. coow am je m'explique xam nga dafa ne. dañu doon xool dayoo entreprise yi. Mhm. dayoo bi ci ñaar lañ koy xoolee. Mhm. salarié yi muy bind. Mhm. wala ñu ne entreprise lu muy déclaré ci chiffre d'affaires na indi quitus entreprise yu mag yu bëri mënuñu indi quitus bu fekkee ni da nga leen koy laaj entreprise yu bëri ña liggéey ak la ñu mën a prouver ca la ñuy déclaré problème la entreprise mën nay liggéey loo ci déclaré 1700 salariés mais ci lu leer xëy na. milliers ca précarité lañ nekk yoo xam ne ni mënuñu feeñ ci ay livre est-ce que du loolu moo feeñ ci partie représentative bi nga xam ne moom ngeen woote pour légitimer membres yi war a bokk. non xam nga loolu euh, am na am na Sénégal euh, boo gisee aussi ñu def confédération yi dañu bëgg gën a yee nit ñi sur le rôle de l'entreprise citoyenne xam nga réew mi. il faut que ñu xam ne ñun ñoo koy defar mooy sénégalais yi principalement jàll ci institution yi ñëw ba ci entreprise bi dem ba ci syndicat yi muy patronal ak euh, syndicat d'employé li ñuy gën a ñor mooy euh, civisme boobu citoyenneté boobu ñu biral ko ci biir doxalin yi loolu mooy rôle confédération yi won ñépp ne dañoo am euh, intérêt booloo pour que li ngay li ñuy wax euh, autorité bi mm-hmm. bailleur de fonds bi euh, international mën a am ay interlocuteurs yu dëgër ci loolu lañuy liggéey loolu mooy li nga xam ne euh, monsieur Cissé dañ ci war a taxaw pour que nit ñi jël une conscience citoyenne boo waree fay l'impôt nga fay ko mm-hmm. boo waree inscrire employé bi caisse de sécurité sociale IPRES nga def ko boo waree wut IPM nga wut IPM loolu la lañ ñuy xaar man ci li ma yaakaar mhm. ñu dugg ci biir entreprise yi wax leen ne leen que dañu bëgg li nga doon wax précarité bi jóge fii dañu bëgg que parce euh, parce que intérêt la mbas mi wone na ko surtout le Covid parce que bi mbas mi ñëwee dafa am ñoo xam ne mënul nañu sukkandiku ci ndimbal de la part de l' état mais mënuñu ci jot parce que état bu xoolee ne yow li ngay déclarer li mu ci am as la mënula jël alalu askan bi di la ko jox c'est logique boo demee ci banque bi sa chiffre d'affaires genn wàll gi wala tiers bi rek lay gis. Mm. nga bëgg a ñëw ne ko abal ma xaalis bu toll ni sama chiffre daffaire mu ne la waaw àll yow li nga may li nga may àbb dafa yenuwul maanaam loolu nag li koy fànq mooy jub mooy jubal mooy transparent principe yooyu nag la ñu bëgg a taxaw dugal ko ci bopp nit ñi ñi nekk dans le secteur formel ñu yoo leen ci loolu ñi nekk dans le secteur informel hmm. ñu woon leen ne leen que itam am ngeen intérêt formalisé wu parce que jafe-jafe yi wane na que yoon wi ñu ne woon hmm. ñi nga xam ne dañoo dëngoon ñi nga xam ne dañoo xamul woon ñi nga hmm. xam ne dañoo peut-être xam nañu waaye mënuñu na ñëpp ñëw déglu ñu wax leen ne leen fii ngeen war a tegu. Mm. pour que réew mi mën a jàll. ci aussi les marchés publics. la gis nañu naa euh, nekk seen xeex yéen ñi nga xamante ni yéen a yor le secteur privé mm-hmm. ici ne waa bitim réew dafa mel ni ci ciy gagné na gis nañ manifestation yi fi amoon bërki démb secteur privé bi tiit nañ ba dugg ci médiation yi. loolu mm-hmm. aussi est-ce que bokk na ci mm-hmm. maanaam priorité yi. loolu ci priorité la bokk. parce que Sénégal dafa amul benn. Euh, euh, na boo xam ne actuellement amuñu ci ay compétence ba mën a jël euh, bu mënuñ ba mën a mën ba ñoom ne dugg ci marché yi euh, euh, gis nga marché li ñu wax commande publique bi dans tous les domaines nag bu ñu ko yemalee rek ci affaire route yeeg yooyu lépp la lépp loo xam ne dafa nekk ci réew mi entreprise nationale yi mooy ñi nga xam ne dañuy dañoo soqe ci réew mi dañ cee war a jot mm-hmm. loolu la ñu mës a xeex te dañu continuer di ko wax état bi ne ko yow sa bopp sax da nga am intérêt loolu parce que euh, euh, man de benn nationalité laa am lu ma lu ma amit ci Sénégal lay yem. Mhm. ñeneen ñi nga xam ne dañu fi dëkkit lu ñu amit ci Sénégal lay yem. dañuy wax ne du ngeen jël risque aussi. <laughs> dama ko ci bëri xaar waaw bu ñu bu ñu <laughs> bu ñu paree bu ñu paree bu ñu paree dañuy egsi ci loolu. <laughs> donc loolu dafa xam loo xam ne dafa doon une logique. Mhm. une logique. waaye nag ñun itam dañoo am lucidité. wax sénégalais yi ne na ngeen jub nag. parce que nag gis nañ fi lu bari lu ko indi mooy ñu ñëw la def marché bi ñu jox la ko nga tàmbali ko te doo ko eggal. loolu it dañuy reconnaître li nga xam gis nañu. très bien. Euh, donc donc voilà gis nga risque bi ngay wax xam nga euh, euh, gis nga entrepreneur bu fekkee ne da ngay wala nga doon investisseur. Hmm. li ñuy wax da ngay am portefeuille. portefeuille mooy un ensemble de de de de risques. yoo mhm. yore nga xam ne danga koy jël. Mhm. li ñuy li ñuy wax euh, euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk mooy. Mhm. portefeuille dafay équilibré. c'est-à-dire mënoo wax sénégalais yi portefeuille yu baax yi indi xaalis dinaa leen teg fële. portefeuille yu néew doole yi. te ñu soxla ko ñu jox leen ko. loolu loolu boo ko defee it. nit ki. investisseur bi. Mm. ñun euh, euh, fi nit ñi jàng rek la ñu jàngee. dañuy def analyse bi ci war. Mm-hmm. fi ngay dugal sa xaalis mooy fi nga yaakaar ne di nga ci am retour d' investissement. très bien loolu war nañ ci mën a taxaw ak mm. état bi. Mm-hmm. pour que ñuy équilibre penser à cet équilibre du portefeuille des investisseurs. jërëjëf merci beaucoup Adama Lam euh, président CNES confédération nationale des employeurs du Sénégal léegi léegi allo présidence laay dinaa la jox benn buñaa bu ndaw rek. exactement ñu dem allo présidence. <laughs>